Thioune ngir waxtaanee euh, dëkkuwaay boobu nag ba tey ñu ngi jëm ci euh, gëstu gi ñu jagleel euh, lu loi bi nga xam ne defoon nañ ko jëm ci wàññi gi ñu wàññi luyaas yi. Mm-hmm. alors moo tax tey ñu invité ki nga xamante ni xam-xamam màcc na ci bu baax a baax moom mooy président des consommateurs du Sénégal muy ASCOSEN muy monsieur Momar Ndao mm-hmm. alors moom nag moo ñu fa yéenee gindi tey jàppale ñu bu baax a baax ñun ñi nga xamante ni ay consommateurs lañ pour xam location bi diminution bi ban instant ban kii la toll. Mm-hmm. ban ban matuwaay lañ ci jël ñoom pour ñu appliqué ko ak lan moo tax nekk en vigueur ba tey parce que kii nañ ko loi bi décrété nañ ko et mais ba tey ñu bëri respecté wuñ ko. Mm, surtout aux consommateurs yi la ñu bëgg comprendre lu bëri sax. ci biir moomu la mm-hmm. donc bonjour monsieur Ndao. Euh, bonjour maa ngi leen di ah, ci ci euh, ñëw bi nga ñëw ci plateau yeewu leen kontaan nañ ci torop voilà juste rappeler que moom bokk na ci ay parce que bi ñu commencé yeewu leen ba tey xam nga man rek euh, dafa ci am ay kilifa yoo xam ne dañ leen jël bàyyile leen yeewu leen bi mm-hmm. donc moom daf ci bokk parce que gis na njëriñ li et euh, yàgg na dox ci euh, gën a jàppale askan wi ci wàllu consommation defe naa du ci wàllu luyaas rek ah. mm-hmm. lépp loo xamante ni soxal na sénégalais yi Momar Ndao bokk na ci njëkk a jóg ngir gën ñoo jàppale parce que ñiy jaay ak ñiy joxe ñoom seen intérêt consommateur bi itam dafa am intérêt donc intérêt googule suñu njëriñ la ñun ñii def te yàgg xeex ñu ngi lay gërëm euh, bu baax euh, Momar Ndao wala El Hadj Momar Ndao euh, ci teewaay bi tey ci yeewu leen bi faama wax na ko léegi nii defe naa tey jot na pour ñu gindeeku ci loolee nga xam ne ni moo jëm ci luyaas geeg nañu ko wàññee woon ci ay jamono fi mu toll nii ci enquête fan la ci consommateur yi toll. waaw jërëjëf boo koy xool loyer bi ñu wàññi bokk na ci loi yi ñu gën a respecté ci Sénégal. heureusement. ndaxte boo xoolee amul loi boo xam ne nit ñi euh, respecté nañ ko à 100 mm-hmm. dañuy wax fii kenn du fi jaar sans interdit léegi-léeg nga gis kenn jàll. Mm-hmm. barki démb gisoo génn ci télé bi ñu wane benn euh, bus bu def ay client ba mu fees di jël sans interdit pour yegg pont foire. bon donc kon am na toujours ñoo xam ne euh, liñ tere la ñuy def. ci biir loolu nag bi nga xamee ne def nañ loi bi li tax mu neex a appliqué mooy ne. ki nga xam ne mooy locataire bi moom moo koy appliqué. waaw fin du ole nga joxe 100000 da ngay joxe 100000 dindi ci 29000. Mhm. muy 71000. Mhm. léegi nag bi ñu demee ba ci digg bi am na ci ay sambabo yoo xam ne ñoom jëm nañ seet nan lañ mën a rëccee ci loyer bi. ñu mhm. ñu ci jéem a rëccee mooy ñenn ñi dañ ne ah dañoo def surface corrigée. mais xamuñ ne surface corrigée bi mu mënoo ko ko opposé ki nga xam ne mooy locataire bi. lu may mu fekk ne bi muy laata dugg la. mais dafa am benn décret boo xam ne moom ñu ko jëloon en 1977 bu tudd décret 77 527 moom numéro euh, décret boobu dafa wax ne bu ñu xasee fixé prix du loyer kenn amatul droit changé ko lu may ñetti at. d'accord kon actuellement munoo wax ne dama def surface corrigée. Mm-hmm. ba tax nga mun a modifier li nga xam ne mooy prix du loyer. Mm-hmm. kooku mooy benn ñaareel ba mooy am na ñoo xam ne dañ naan la damaa soxla kër gi. bëgg nga génn. damay tabaxaat damay damay defaraat wala maa fay defaraat et cetera ci mbirum defaraat kër. Mhm. loi bi dafa wax ne démolition reconstruction. maanaam toj ba mu tasaaroo nga tabaxaat kese. moo tax nga mun a sambabo yi ay damay karoo damay defaraat yooyu waaw sambabo yi lañ. que loolu yoon meew ko. lépp loo def ci kër gi luy liggéey. bu bokkul ak toj tabaxaat. bokkul ci li nga xam ne moom la yoon mais pour nga génnee ci nit comme raison. d'accord ba joxe ko comme raison. Ah. d'accord démolition repose kon ça veut dire que nit ñi itam euh, euh, xamuñu seen loi. exactement beneen bi mooy bu fekkee ne sax da war a toj tabaxaat période boobu kenn waru faa dëkk lu may gardien. même boo fa dëkkalee keneen yoon day dal sa kaw. beneen bi mooy boo waxee ne léegi man dama faa bëgg dëkk man borom kër gi. Mm-hmm. il faut que mu nekk ne yow ñi ñi nga xam ne ñooy tax nga mun a joxe raison mooy yow sa soxna. sa doom sa doomu soxna sa wayjur wala sa wayjuru soxna. ñi la jege rek sa frère sax mënoo ko ne moom ngay gé da ngay génne waaju pour dugal sa frère. d'accord loolu yoon mayoo ko. Mhm. te ñooñu nga wax ñëpp kenn ku ci ko dëkk ca kër ga lu mooy de deux ans génnaat yoon dina la daan vingt quatre mois de loyer nga remboursé ko ki nga génnee. beneen ba mooy pour loolu mun a nekk pour génnee bi mun a nekk. Uh-huh. kayit gi war nga koo jox waa ji juróom benni weer avant période triennale période triennale mooy su waa ji duggee 2010 3 ans 1er janvier 2010 1er janvier 2013 si lay am première période triennale 6 mois avant 1er janvier 2013 ci nga ko war a jox euh, congé bi mhm. soo ko ko joxee 5 mois avant valable tul il faut nga xaaraat beneen période triennale bi maanaam yeneen trois ans beneen bi mooy feuille bi mënoo ko bind rek il faut que mu jaar par voie extrajudiciaire dafa war a jaar ci huissier. <laughs> donc dafa compliqué compliqué compliqué dafa compliqué kuñ bëgg a génne daal bañal point mu jeex ñun ñun itam yenn saa yi du ñu ko jaral sax ah. bu borom kër ñëwee bett la tey rek ne la da ngay génn damay defaraat sama kër voilà fay tayal sax nekk di topp parce que dañuy jàpp ne kër kër jàmbur nga nekk mais xamuñ ne loolu kuy lee kër kuy lee kër voilà ah. léegi nekkatoo borom kër <laughs> dañ la jàpp comme commerçant nga borom bi mënul wax ne ma la jaay <laughs> la de donc yóbboo ñu jàpp de vente lay doon. xam ne commerçant la man de kersa nag maa luwee kër <laughs> su la soo liyee dugg ci kër gi te waa ji autorisé wu la. soo ko liyee nekk amuloo droit dugg ci nekk bi te waa ji wu la. ñun nag comprendre loolu. voilà est-ce qu'il y a des commissions yoo xamante ne dinañ gindi ñun locataires yi. Mm-hmm. pour ñuy mën di renseigner wu foofu pour ñuy mën di ñu xamal. ñun lan moo ñu war lan moo lan lañu mooy suñuy droit. voilà ñun lan lañu am. exact lan la ñu am pour amal suñu bopp. exactement donc léegi bi nga xamee ne mbir mi commencé woon na ca commencement bi defoon nañ numéro vert. léegi après dañ bàyyi numéro vert bi léegi ASCOSEN moo koy jël. en charge totalement fi mu ne nii booy xool. Hmm. d'accord képp koo xam ne am nga jafe-jafe soo ootee suñ numéro bi ñu jël la en charge dañuy dem ba ay tribunal ak yëpp di dimbale nit ñi defaral nañ leen ay réponses yoo xam ne suñ ñëwee devant le juge moom la ñuy jox juge bi yoo xam ne dañ ko bind ba pare. Hmm. ndax sax am na temps yoo xam ne juge yu bari comme gëjoon nañu àtte àtte yu compliqué ci loi bi ndax bu njëkk ku ñëw rek ñu génne la. Hmm. léegi nag bi biñ gisee ne nit ñi commencé nañoo génnee textes yi génnee articles yi. léegi juge yi fi ne nii ñu ngi déglu bu baax li nga xam ne moom la population yi wax donc léegi ce qui fait que ngay gis à 80 pour cent ñi ñuy yóbbu yëpp ci kii ñooy mujj gañe ndax dañuy am loi yeeg texte yeeg yooyu mhm. yeneen beneen kii bi tam mooy def nañ ci internet euh, loi yi ak texte yi ci surtout seen pour que képp koo xam ne soxla nga ko nga mën koo télécharger liir ko mhm. Mhm. waaw loolu tam nekk na loo xam ne dimbale nu ñu bari ci ci ci population yi euh, beneen bi mooy xam nga euh, li nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, dëkkuwaay yi. Mm-hmm. li nga xamee ne moom lañ ko tëralee. booy xool di nga jàpp ne xaj na am na quelques réclamations mais. Mm-hmm. recensement bi ñu mujjoon a def ci affaire logement yi dañ calculer ne dakaar am na cent quatre-vingt-seize mille quatre cent location euh, logement location. Mm-hmm. ci cent quatre vingt mille quatre cent yi li nga xam ne moom moo ci contestation réelle. Ah, bariwul boo koy xool soo xoolee ñu ne la mille wala deux mille day mel ni lu bari yow mais Euh, boo ko calculer ci total bi dafay faible. Mhm. Euh, beneen bi nga xam ne moom moo ci nekk mooy ñu bari dañ dul jéem a sax góorgóorlu. Mhm. su waa ji ñëwee ne la génn rek nga génn. parce que xamuñu li ñu war te génn bi te te kenn rek moo mën a génnee nit kenn mooy juge huissier sax mënul génnee nit mais li ñu war a njëkk a xam mooy li nga wax huissier pour mu génnee il faut que juge jox ko point bi ngay wax nii c'est très important pour suñu xarit yi seetaan mais li nga wax sànq itam d'abord hmm. mooy li nit war a xam boo loué que la ñu koy woowee borom kër gi. nekkatul borom kër gi. yow mi ñuy luwee yaay borom kër gi. moom c'est un exemple bi nga jël ci njaayum ceeb bi. kay jaay ceeb ca boutique ba. ceeb ba ngay jënd ci moom di ko togg sa kër. moomul ceeb bi boo ko dee togg di ko yàq doon na borom ceeb bi. voilà donc je pense que c'est important. pour que consommateurs yi doon wax lu am solo itam. Mhm. ci anam yi nga xamante ni moom la nit ki waree génn. voilà beneen bi mooy xam nga léegi-léegi ñu ne am na ñoo xam ne dañoo génne ki fa nekkoon. Mhm. pour dugal ku bees yokk prix bi. Mhm. mais prix loyer kenn mënu koo fixé lu may ni ko yoon waxee. waaw te yoon dafa wax ne da war a def surface corrigée pour kii waa ji dugg bees. Mhm. ndax yoon daf ne su fekkee waa ji dugg na sax wax waxtaanee woon nañu ko. daaw ci exactement mhm. su waa ji waree dugg da nga war a photo da nga ko war a def. surclasse corrigée bi ba jox ko photocopie bi mhm. soo ko ko joxul yoon dina la daan daan boo xam mun a dem ba deux cent mille le fait que joxoo ko copie bi rek maanaam tey ji koo xam ne dugg nga ci loyaas commencé fay te waa ji joxu la coppi surface corrigée bi yoon daan na ko décret bi defar surface corrigée moolaat nañ ko ci bi ñuy changer loi yi nga xam ne soo ko defee rek prix bi dina wàcc automatiquement. d'accord donc ce ki fekk balaa waajee duggaat munoo yokk parce que yokk. mu ngi dépendre ci surface corrigée. surface corrigée defaraat nañ ko ba nga xam ne boo ko appliqué day wàññeeku. Mhm. kon munoo wax ne damay génne kii pour yokkaat prix bi. fenn fenn peut-être dinaa ko dinaa ko comprendre parce que bu dee loué ñett la euh, ñaare euh, kii loué. Mhm. boroom kër gi. voilà ak yenn saa yi ak agence bi. dëgg la te ñett ñëpp kenn ku ci nekk dangay xool sa intérêt. naam euh, ñun peut-être ay ay ay loué ay wax. Mhm. waaye boroom kër yi itam defe naa seen ay intérêt bien nga wax ñu ko. voilà ndax munoon dépenser itam xaalis bi ci sa kër. voilà doo ca dara ñoom ci état d'esprit d'esprit boobu la ñuy joxe la agence bi itam mu ngi ciy xool la mu ca war a am moom itam par rapport ak liggéeyam ci ay intérêt que euh, taux de xaw ma lan la ñu ko tuddee waaw tout à fait xam nga borom kër yi borom kër yi actuellement am na ay dispositions fiscales yu ñu pour wàññi leen li nga xam ne moom mooy droit d' enregistrement yeeg yooyu maanaam ñu daan fay état bi pour di enregistrer vente yeeg terrain yeeg yu mel noonu mm-hmm. alors loolu yëpp pour faciliter leen mbir mi la mm-hmm. borom kër yi aussi yoon mi ngi ak ñoom mm-hmm. ndax loi dafa wax ne boo toogee un mois fayoo ko maanaam ngeen d' accord ne le cinq la nga ngeen fay chaque mois mu ngeen d' accord le dix ça dépend yéenay d' accord daal mais le cinq mooy le terme normal weer dañ koy fay avant ngay tëdd donc toujours waroon ne damay xaar ba mu jeex nga doog a fay. donc avant le cinq su fekkee toog nga un mois fayoo rek waa ji am na droit def procédure procédure bi mooy lan day dem jël huissier ne ko kii kat ameel na ma weer. d'accord su ko defee léegi huissier bi day ñëw ci borom ki euh, locataire bi. loolu moo tax ñu naan weeru lu yaas avance en avance. nga koy fay voilà loolu moo indi par exemple avance bi ñuy joxe. Ah. voilà léegi nag su ko defee huissier bi bu ñëwee day wax ne kii nee na fayoo ko un mois de loyer. kayit gii ma la indil nag frais bi temps la. Mhm. donc da war a fay frais bi. Mhm. ba pare fay loyer. location bi li maanaam li mu la waa yi wax ne moom nga ko amee. soo ko fayee affaire bi jeex soo ko fayul waa ji daf naan la man soo ma fayul dans juróom-ñetti fan. Mhm. danaa la yóbbu ci yoon. su la yóbboo ci yoon dans un mois boo fayul tribunal xool bu fekkee ne daf ne fayoo. parce que tribunal moo am droit tribunal kese huissier sax amul droit génneel la te amul kayitu tribunal ah, euh, beneen bi tamit mooy léegi-léegi ñu ne nit ki nee na may nañ ma congé délai 6 mois est-ce que damay fay wala du ma fay effectivement dafa war a fay dafa war a fay waaw même bu ñu la mayee délai délai boobu nga fay toog da nga fay parce que yaa ngi utiliser kii yu jàmbur kër jàmbur donc da nga war a fay mhm. beneen bi aussi mooy maa ngi génn waa ji amel naa ko ameel na sama caution mi ngi ak sama un mois de caution mhm. waaw caution du du loyer mais caution bi mooy ne en cas boo dëkkee ci kër xam nga mun na am loke yi yàqu parce que mais dafa am caution ak mois de loyer. voilà léegi ñoom loolu. loolu maanaam supposons léegi yow le le premier novembre. waaw dañ lay wax caution ngay joxe ak un mois de loyer. waaw loolu moo indi ñaari weer yeeg ñetti yeeg ñeenti. exactement nga bëri loolu nga joxe ko. voilà xam nga léegi par exemple kuy dugg si premier novembre. locataire léegi premier novembre. war ngaa fay yow mois de novembre. Mhm. même boo duggee le trente des trente octobre. da ngay fay mois de novembre jiital ko. muy un mois. Mm-hmm. nga joxe benn caution. Mm-hmm. équivalente au euh, équivalent à un mois de loyer. Mm-hmm. mais caution bi mun a romb deux mois. waa ji mën na la laaj deux mois de caution léegi quatre mois lañ bi un mois de loyer d'avance ak mois de loyer de loyer caution ak commission bi muy quatre. waaw waaw xaaral ma foofu laay waxee. caution bi rek la yoon wax ne. mënta romb deux mois. donc mm-hmm. donc kon mun na ko def ba deux mois. Mm-hmm. léegi da nga war a fay un mois d'avance ça fait trois mois. Mm-hmm. léegi nga war a fay commission bi. commission d'agence ñoom dañuy jàpp ne un mois la. parce que dañuy basé wu ci ne su waajulee un an donc un douzième douze pour cent lay doon. donc ça veut dire que soo fayee un mois sa veut dire que c'est comme dañ calculer comme su fekkoon ne douze pour cent la. moo tax ñu lay laaj un mois. mais ñun ñu ngi liggéey pour jéem a xool nu ñu mën a wàññee loolu nga xam ne moom mooy mooy commission bi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bon euh, donc ce qui fait que ku la laaj deux mois d'avance mi ngi ci yoon su la laajee trois mois d'avance trois mois de caution pardon c'est pas valable deux mois de caution mën na ko laaj plus un mois d'avance muy trois mois plus maintenant la commission d'agence loolu yëpp ah, c'est normal mais loyer bu dee à usage d'habitation la amul TVA kon bu wax ji ñëw ne la maa ngi la luyee cent mille mais teg naa ci TVA 18 pour cent da ngeen di xool loolu amul TVA waaw donc donc donc c'est très important cest à même bu ñu la waxee ne fukki junni lañ la ñuy luwee fi nga dëkk voilà après bu ñëwee ne dañ ci teg ñaari junni ndax taxe bi wala TVA bi non benn taxe daal xam naa ni moom moom mooy waaw taxe sur les ordures ménagères mooy mbirum bale TVA moom déedéet TVA bokk bokk ci très bien euh, beneen bi tamit mooy xam nga léegi-léeg nga ñëw ñu ne la euh, Euh, léegi supposons nga nga nga loué benn kër. Mhm. ngeen dem ba fin de location. Mhm. nga war a dem dara yàquwul ci kër gi waa ji daf laa war a rembourser sa caution. Mhm. mais bu fekkee dafa am ay loquet yu yàqu. dafay jën jël ci xaalis bi jënd ay loquet réparé la wala yow nga def état de lieux bi nga def defaraat ko. ba yëpp ok bu ñëwee xool gis ne dara yàqu ci. mu delloo la sa caution donc loo la bi jël. bu la ko delloowul. no daf la ko war a delloo par force la mooy yoon waaw sinon nga yóbbu ko police daf la ko war a delloo sa xaalis la ndax xaalis bi nga foofu yaa ko fa déposé loolu la wax caution pour wóoral ne ba pare nga laaj nga te laajte facture ba pare nga parce que yenn saa yi ñu jënd robinet chinois bu ñaar téeméer dala fukki junni lañu ko jëndee léegi-léegi aussi parce qu'il y important léegi-léegi aussi nga am bailleur yoo xam ne ay ay samba boy yoo xam ni da ñëw di leen fay ñu ne duñ jël su ko defee yow nga ne pour ko moom mu mun a waxi ne yow feyoo ko amel nga ko voilà voilà léegi bu cas mel noonu amee da ngay def li ñuy wax euh, offre réelle dangay dem ci huissier nga jox ko xaalis bi mu dem jox ko waa ji hmm. dina am papier boo xam ne huissier bi da koy jox su ko jëlul moom problème la léegi parce que huissier bi dina bind ne man huissier indil naa ko xaalis bi jëlu ko d'accord d'accord comprendre nga donc dina ko jël par force su ko jëlulee après mënu laa wax ne la yaa ma fay parce que defal nga ko offre réelle yooyu yëpp nag ku ñëw ci suñ bureau bi ASCOSEN bi ñu defaral la ko boole la ak UG yoo xam ne lii gars yi di laaj ak li ñuy laaj ñoom ñoo gën a yomb. moo tax fii léegi balaa ngay dem dinañu joxe numéro ak ASCOSEN ak adresse bi pour permettre aux euh, ñu gën leen jege beneen bi nga xamante ni moom laa bëgg ñu jeexalee ko waxtaan bi ak yow euh, Momar Ndao euh, muy impôt mhm. loolu itam bëgg naa nit ñi bàyyi ci xel impôt yi kan moo ko war a fay waaw xam nga boroom kër gi ci boppam mhm. moom moo war a fay impôt yi ah. comprendre nga borom kër gi mais am na yoo xam ne ki nga xam ne moom mooy locataire bi moo ko war a fay d'accord léegi yow tam boo loué kër da ngaa war a dem fay enregistrement mhm. nga dem yóbbu ko ñu enregistré yow bi yow locataire bi ah. enregistré ne yow ci sa bopp euh, kii nga maanaam loué nañ la kër gi et tout ça très bien donc yooyu yëpp dafa nekk lu am solo beneen bi mooy xam nga dañuy wax rek euh, loca loyer à usage d'habitation mhm. mais soo amee bureau fenn mhm. foo xam ne jaayoo fa dara. dañ koy considérer comme location. à usage d'habitation. d'habitation. très bien foo xam ne tam bureau état bi la. Mhm. te jaayuñ fa dara. bu dee dañ fay jaay day nekk euh, à usage commercial. Mhm. kooku beneen texte moo koy gérer. Mhm. d'accord ah, texte bi koy gérer texte la boo xam ne texte communautaire la. d'accord mais yi nga xam ne ay atelier la menuiserie artisanat yooyu yëpp ñoo ñëpp ci texte boobu lañ bokk bokkuñ ci texte location traditionnelle. voilà dama am dama am message moo jot léegi nii mu ne euh, euh, bu borom kër gi nanguwul peinturaat defar porte yi pour sécurité bi nag fu mu jëm ak moom. <laughs> parce que am na bon dafa am kenn mënu xam nga saa yi nga nga luwee ci kër duñ fa defar lii nga laaj ko ñu ko defar ko ci xaalisu voilà voilà loolu waaw loolu c'est important euh, xam nga dañuy wax ni kër buñ la ko luwee da nga ko war a gérer en bon père de famille maanaam dañuy jàpp ne sa kër la yow mi ko luwee donc am na entretien courant yaa ko war a def uh-huh. entretien yu mag yi nga xam ne nag euh, euh, lu lu réparation yu mag la moom moo ko war a def su dee waa ji amul xaalis mm-hmm. pour def ko wala sawarul pour jël initiative am da koy bind lettre ne ko kon danaa ko def mm-hmm. bu ngeen d'accord ci kii bi nga defar devis def ko dindi ko ci location mm-hmm. su bañee da ngay dem tribunal pour ñu imposer ko mu def ko voilà wala nga dindi ko ci ci ci location voilà am na tam beneen élément bu am solo mooy euh, euh, léegi-léeg nga gis euh, koo xam ne day fay luye benn kër mm-hmm. dem ba ci digg bi bugg a génn yooyu sa bopp nga bugg a génn da war a joxe préavis waaw da war a joxe préavis. mënoo tëb rek génn noonu loolu comme ni ñu def tey. ni ñu faralee locataires yi. voilà euh, lundi prochain dinañ ñëwaat nag. ci borom kër yi ñu wax nag seen avantage. seen avantage parce que loolu itam am na solo agence itam seen ay avantage parce que ñett ñëpp euh, euh, war ku nekk war ñu war nga xam. kii li ko war ak li ko warul. Mm-hmm. exactement c'est c'est très moom la woykat bi waxoon. ni mm-hmm. jéem a waxtaan rek ba juboo pour pour pour pour dëkkuwaay yi mën a baax. tout à kii mënut a dem bàyyi morom bu ñu defee en sorte am na ay locataires yoo xam ne ils sont dans de très bons termes. oui très bons termes ay doom et tout ba nekk ay mu amee ay samba boy ci ay liggéeykat locataires yi tam noonu la ci amee ay ñoo xamante ni euh, xam nga loué sa kër pendant des des des ay. dëgg la am na tam quelques fayoon nit ki voilà jëm tamit ci diggante facture yi voilà facture courant wala ndox yeeg yooyu tam day am ay litiges léegi yu bëri nag surtout ndox yeeg kii yi moom dafay am litige yu bëri mais des fois nga dajeeg borom kër yoo xam ne macha allah dañ lay jox lépp ba keroog nga koy mën a am très bien je je je rappelle juste adresse su euh, Ascosen ak numéro téléphone bi nga xam ne bu ñu ko joxee suñu mbokk yi euh, dinañ ci mën a sukkandiku pour lépp loo xamante ni réer na leen euh, ci wàllu location bi surtout ñu woote ñu wax leen 77 677 95 91 d'accord 677 ñu nekk donc avenue Hyacinthe Thiandoum mhm. à côté am na benn b bu bees. Mhm. waaw ñoo taxaloo daanaka. voilà voilà. Momar Ndao ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, et puis gërëm la encore ah. ci liberté pour consommateur internet bi aussi www.ascosen.org. Euh, ñu mën a télécharger documents yëpp. Mhm. yi jëm ci yooyu yëpp prix yëpp tous les documents officiels yi jëm ci yooyu mi ngi ci. voilà c'est très important. ñu ngi lay gërëm bu baax Momar Ndao gërëm tamit waa Ascosen yëpp parce que groupe la bu euh, équipe la bu yaatu boo xamante ni ñoo ngi sa ginnaaw et que gis nañu ni boobu ba tey yaa ngi jàppale bu baax yaa ngi défendre consommateurs yi et c'est très important bu weesoo yeneen mbir yoo xamante ni soxal na consommateur yi bis bi euh, ko defee ñu waxtaan ci euh, ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf maa ngi lay gërëm aussi ak sa équipe yëpp parce que euh, dañuy wax ne le monde appartient à ceux qui se lèvent kon nag àddina bi yéen a ko moom di ñaan rek li ngeen commencé continuer réussite totale jërëjëf vraiment yéen a baax rek merci voilà merci monsieur Ndao voilà merci beaucoup Fama Thioune tey dëkkuwaay ñu seqoon waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Momar Ndao bu seen je rappelle que moom dafa bokk ci ay parrain wu yeewu leen